يا أئمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر ورسولنا يرنتو قد قصصناهم نتلنا لنا عليك تيوم من قبل بنجك ورسولنا منا يرنتو وقم لم نقصصهم نتلنا لنا عليك تيوم يلا نين نعم يرنتو وقم نين نعم. شن السوار ak seen i mbir nettal na ko yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam ngir gëm yàlla am gën mu gën a muñ waaye am na yonent yoo xam ne seen i mbir yàlla nettalul ko yonent bi salallahu alayhi wa sallam de ah bu fekkee yaay am na yonent yu bëri yu yàlla nettalul seen mbir yonent bi kon yonent seen lim yàlla rek moo xam nu mu toll rek laa wax ñu ne yonentu xam ne seen lim waaye yàlla daf daf ko nettalu rek waaw seen histoire waaye lim ba moom toll xam na ko zakra na fi hadi aaya ci biir laaya anna laa ne yàlla baasa yón na rasulana yonentu na xisa sumum seen seen mbir ala rasulillah ci yonentu yàlla bi salallahu alayhi wa sallam wa baasa yón na rasulana yonentu lam yaqsusum nettalu leen alay ci yonentu qaala wax jalaal jalaal ruwee nettali nañ àndoon na yàlla taala kawe na baax yu ne samaaniyati alaafi nabiyin juróom-ñetti junne yonantu arbaatu alaafi ñeenti junne ya min bani israila banu israil lañ bokk wa arbaatu alaafi ñeenti junne min saayiri naas ci mboolem nit ñi la ñeenti junne ci banu israil ñeenti junne yi ci yeneen xeet yi qaalahu wax na loolu fi suurati xaafir loolu la jëlaal wax sa suuratu xaafir waqad tabara dañ na suyuti من هذا القول ci bi la في انجل daan fii ngir lott gim lottu wax ne ak doyati gi suyuti moom génn na ci ne هذه لي رواية مصولة ضعيفة قاجي لطف جدا لول فلهذا لم تختبرا دجنا المفسر في الكتب من نسبتها شاس كنك إلي جمسمهم وعمولي سيوتي ممكن نجا ونسبا ماسكنك قائد عجل كوه alladi ki nga xam ne moom mooy jilaalul maxalli moom la ko askane ndax wax ju lottu la wal mashhuru li siw mooy ana laa na yàlla bans yon ne me an biyaay ci yonenti alfun junne loolu mooy li siw de waaw ka xat maanaam comme xat rek laa wax de waaw loolu la yàlla am ci yonentu waaw kaaf gi ñaar fukk la waaw kaaf gi dégg nga dégg nga téeméer waaw daal di ñeent muy téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñeenti junne rek laa wax de loolu la yàlla am ci yonantu kaaf moo ñaar fukk dal di ñeent kaaf téeméer nga boolante ko mm, boobu nag bu nekk ab junne la de muy téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñeenti miyaatu alfin téeméeri junne waar baatu ak ñeent mooy si ak ñaar fukk alfan si junne rek laa wax de loolu la yàlla am ci yonantu looloo gën a siiw cent vingt quatre mille ni suum kenn wàll ga min bani israil ñu bokk si banu israil wa ni suum kenn wàll ga min saayir naa si ci mboolem nit ñi loolu la loolu mooy li siiw rek laa wax de waaw waaye la wér daal mooy yonent yàlla rek a xam seen lim arusul yonent ñen yónni minum ci ñoom salaasu mi ati ñetti téeméer la wa salaasa daxasara fukk ak ñett aw arbaata asara wala fukk ak aw xamsata asara wala fukk ak juróom ala ixtilaafi riwaayaat yi waaw ci kaw boo sukkandikoo ci wuteeg nettali yi ñii dañ ne yàlla ñoom yónni ci yonent yi ñetti téeméer fukk ne ñetti téeméer fukk ñeent ñii ne ñetti téeméer fukk juróom waaw lu mën a xew daal wutee nañ ci waqila am ñu ne déedéet ëpp nañ loolu miata alfin ñaar téeméeri junne lañ wa arbaatun ak ñeent waaye su ak si junne ñii dañ ne ñaar fukk ak ñeent mooy cent vingt quatre mille ñii ne déedéet waaw ñaar téeméeri junne ak ñaar fukk ñeent موي 224000 لول يالا ام سي نون ترك لا واخ كل هذا لي لب اقوال روماي وهو بروم كم كاميلا نيوم بروم كم كاميلا واخ نيو واخ ييب من وا وا ان الله با نا خمنه يالا يقول ماي واخ نان ورسولنا من يونس تيو خمنه تركسنا ام نتل نين سين بير عليك تيو من قبل بو نجيكون ورسولنا ayna yahtadi fan lay gindee ko ahadun kenn li maarifati xal dim ngir xam seen lim rek laa wax de ba nga xamee ne lii la yàlla wax ne am nañu nettali yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam am ñoo xam nettalul ko nettalul leen yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam kon kon naka la ñuy def ba xam lii mu yonent yi rek laa wax de ayna <coughs> yahtadi naka lay gindee ko ahadun kenn li maarifati xal dim ngir xam seen lim fii am na ci ñoom man xas la ka nettal naa laa yàlla seen mbir u fii am ne ci ñoom maanaam yàqu sa ñoo xam ne yàlla nettalu seen mbir rek laa wax de ah su ko defee mu ngi mel ni daal wax na ne lii mu yonent yi yàlla rek xam lim moo tax ne wala xaqu lay dëgg waxuma lu siiw nag wala la borom xam-xam yi wax wala lañ nettale rek laa wax de ci riwaay waaye lay dëgg te wér mooy an laa na yàlla tabaaraka ba nii wa taala kawe na te jëllaa feeñu na bisaayir asmaa yi ci mboyam turam yàlla anbiyaa yi ci yi rek waaw kullu ismin bépp tur waaw te jëllaa na fi nabiin ci yonent rek laa wax de kama na kullu nabiin comme nga xamee ne bépp yonent te jëllaa waaw fii wëllin ci wëlliyu waaw boo sukkandikoo yi du jeex kon wali du ñu am lim rek laa wax de hmm. faala haza boo sukkandikoo ci lii adadul awliyaa yi lii mu yéen wali yi wa adadul anbiyaa yi lii mu yéen ci laa yaar fu mu xamul seen hmm. ndax ñoom adadul asmaa yi ñooy limu tur yi nga xam ne ne yàlla waaw feeñ na na ci ñoom rek laa wax de waaw nga ne ko lim yi nu bëree mu ne wa kasratu asmaa yi bërik tur yi hmm. taarifoo xam léegi mooy kulla daratin naka bépp waaw sànq lañ maanaam lu tuuti ba mel ni sànq lañ fi wujudi ci mbindeef gi te jël laa feeñ na fi ci moom ismun ab tur waaw xëy la si bu bokkut ak bi nga xam ne te jël laa feeñ na fi loxraa ci beneen tur rek laa wax de loo mën a laal rek jëmm joo mën a laal dégg nga bépp jëmm joo mën a bu fa feeñ bokkut ak bu feeñ ca morom ka bu ko defee nag waaw dan la jàngal waaw boo amee dégg-dégg ne tur yàlla yi amul fu mu yem maanaam tur yi nga xam ne ñoo feeñ ci wujur gi bari nañ bëri goo xam ne yàlla rek a xam seen lim yonent yi noonu lañ mel waaw lii noonu lañ mel ana loolu ci déggee waaw mooy ko loo mën a gis rek waaw mu ngi noonu rek laa wax de waaw cosaanam waaw moo di turwa jaar na ci nubuwatu jaar na ci wilaaya su rek laa wax de mm, sàggan dëgg daal moo ko ak alkaan moo ko alkaane gi waaye cosaan li moom mooy ne mm, loo xool rek xamal ne am na jamono waaw ma nga woon ci asmaaw yi am na jamono ma nga woon ci anbiyaa yi na waaw xam-xamu góor yàlla yi la waaye du xam-xamu waaw téere rek laa wax de <coughs> yaa ngi dégg kama na hadrata zaat yi ni nga xam ne péeb jëmm ja laa ne ay tati déedéetal waaye laxaa di ko ñeel péeb jëmm ja amul fu mu moom wala yoxitu du peeg bihaa ci moom ahadun kenn wa hadratu sifaati péeb melo yi kazalika comme noonu dara mun koo peeg xamul fu mu yem fa hadratul asmaa yi peeg tur yi kazalika comme noonu bu bu feeñoo al asmaa tur yi filaan biyaay ci yonent yi waaw soo ko defee tur wu nekk rek dana wàcc bi yonentu waaw tur wu mag wa waaw mooy taxaw taxawaay yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa waaw su ko defee aw tëjal wala mu tëjalu wala mu feeñ adratu nubuwati peeg yonentu ba filaw yaay ci wàlli bu ko defee yonentu bu nekk rek waa maqaam <clears throat> tëj feeñ na ci wilaayatu di ab waliyu waa waaye nag waa ki ne wala yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy xaatimul wilaayatu ko defee noonu la demee rek waaw dégg nga bu ko defee koo xool rek xamal ne cosaanam moo di wali la <clears throat> gaar gaar daal moo andi réer gi moo andi sori yàlla gi waaye cosaan li moom lii la ndox daal ndox mu set la mm, waaye nag bu yàggee mm, mën naa am nag mbaala mbaal loolu garsi la waa waaye cosaan li moom lu laab la ñam daal lu laab la waaye nag buy génn mën naa nekk soobe rek laa wax de waaye cosaan li moom noonu dégg nga ba na lam lu mbir mi ala maa waaye ci mel mu ne nag tur yi bu tëjalee ci moom rek la laa wax moom rek la laa wax de bu ko defee du jëmm yi dañoo wute du yàlla yit péem dafa am lu xamutoon mu amal ko wala loo xam ne nii na ba passé jàng nañ ca gannaaw mu ne faadilatullahi laysa la maadin wala mustaqbal péem yàlla bi moom xamul lu passé xamul lu ñëw dégg nga mooy lépp rek lu teew la saa su nekk rek lépp moom xaadir la lu teew la ci péem yàlla ba laa wax de nekkul woon ne dafa am loo mu war koo amal nekkul woon ne dafa am loo xam ne am na it passé na leneen war a am lépp ma nga teew saa su nekk si jamono ju nekk ba faw ci azal ba ci abat te yàlla bi noonu la mel <coughs> su ko defee melo yi nga xam ne ni moo feeñ ci asmaaw yi bokkul ak melo yi nga xam ne ñoo feeñ ci anbiyaaw yi bokkul ak melo yi nga xam ne ñoo feeñ ci nubuwatu loolu waral tur yi wutee comme ni nga xamee ne jëmm ji nga xam ne jëmm la ba muy xale waaw gone gi dañ ko doon wax muy waxambaane ñu ne ko grand ba muy njigir ñu ne ko njigir ba mu màggat ñu ne ko paaba mu dee ñu ko néew ba waaye taxul na muy beneen jëmmu jëmmu ji rek la moom rek la waaw fa bi ictibaari sifaati taaddad asmaa waaye wal musamma waahidun mele yu wute yi moo tax tur yi wute waaye kañ yi tudd moom kenn rek laa wax de yàlla it noonu la te jël yi gim def ci asmaa yi taxul leneen am waa lu dul moom te jëli gëm def ci nu bu ta taxul leneen am te jëli gëm def ci wilaayatu taxul leneen am su ko defee nit daal nekk wali du jaaxal nekk du wali moo lay jaaxal ndax loolu moo du ci saanam wa kallama waxe na Allah yàlla Moussa Moussa takliman ak waxe bilaa waasita dañ ci lu digle yàlla daal diggante ma Moussa amul digle wax naag musa wax goo xam ne direct la rek laa wax de yónni ko Jibril yónni ko kenn inna Allah naka yàlla tabaraka bëri na wa taala kawe na kallama wax naag Moussa Moussa inda jabali tuur yi ca doju tuur ba rek laa wax de fi munaajaati ca di xale ga baada ma dara ba gannaaw bu mu saddee jaaban kiiraay waaw <clears throat> mina zulmati ci lëndëm wara siti miati farsak gannaaw juróom benn téeméeri farsak mm, déngal dóor na kiiraay googu daal di wax ak Moussa nag fa tajalla mu daal di feeñu bi nuur yi ci leeram fa tanaha mu daal di sori ashiyaatinu cheytaane ya wal jinnu ak jinni wal wuxuush ak njaaxal yi waxatal xasaraat ba ci waaw yent yent yi mooy rab yi ñëpp sori ja doj woowu dégg nga nag fa samea mu dégg Moussa Moussa kalaama laay wax yàlla tabaraka bani wa taala kawe na bilaa harfin ci ludul haraf wala sawtin amut kaddu wala kalimatin amut baat Moussa dégg wax ak yàlla nag yàlla ngi wax ak moom qaala wax na Moussa Moussa innahu naka moom ashaddu moo gën a taraale ci moom mi ne ruuxu di ci dënd kaddu googu mu dégg moo gën a tat dënn goo xamante tawaaradu dana rotaan lii ci moom kaddu gaa ko gën a dëgër wa alazu moo gën a neex min la zatil jimaa ci bànneexu sëy biasati ala fi din fin ci fukki junne fulde bànneexu sëy boo ko fuloon fukki junne yoon kaddu gi Moussa dégg ci yàlla moo ko dàqalaa wax de mm, woo mu mees moo ma ngay dégg bi kuliyati ci léppam jamono ba yàlla di wax ak Moussa léppi nopp nopp la kullu zaati lépp ci jëmmam ji saarat mujj na samaan di nopp weesma muy dégg alkalaam wax ji min kulli jihaatin ci bépp wàll Moussa ngi dégg wax ji ci wàll wu ne lay se nekkul law di ñeel wax yàlla ja jihaatun wàll wala harfun amul haraf wala loxatun amul lang wala sawtun amul kaddu haada lii kalaamu laay moo di wax yàlla rek laa wax de <coughs> wax yàlla ngoogu amul wàll amul haraf amul lang amul kaddu kon lu tax ñu ne alquran ji wax yàlla la alquran jëlee kalifa boo ko yàlla jëla ma nga woo tuddee noonu wala daal dégg nga tarjuma la ci wax yàlla jala yàlla di wax daal moo nekk ci alquran daal benn la waaye dëgg-dëgg wax ja moom kooku moom amul kaddu amul xaraf amul lang guñ ko wax amul dara dégg nga rek laa wax de mooy dëgg-dëgg melo yàlla yi nga xam ne nii melo wu la ci jëmm ja melo yàlla wi nag noonu mën nga wax ne dara génn ci rek laa wax de moo tax loo mën a xoolal loolu di alquran moo tax alquran lépp nekk na ci biir laa waxee waaw loolu nag wax la waaw maa yaqiluha illa al alimuna rek laa waxee waaw wala nga ne illa al arifuna te arifuna ñu alimuna yi de <coughs> su ko defee nag mu ngi noonu loolu la jàngal ne borom bi subhanahu wa taala am na ay melo yoo xam ne a leen wutal xalifa yoo xam ne ñooy junñi melo melo yooyu ñooy tax nga mën a hegg ci melo yooyu alquran ji moo di xalifa gi nga xam ne nii ci ngay jaar ba egg ci alquran dëgg-dëgg ja moom lañu wax ne melo yàlla la moom alquran kàddu yàlla la ba léegi ñëpp ak naan wax yàlla la waaw alquran jilee dégg nga rek laa wax de xam na melo wo xam ne jomm na ci melo yàlla dëgg-dëgg wu de te moom melo yàlla wa maanaam li xam ne nii moom la alquran ji melo yi ci feeñ melo yi eh, melo yi feeñ ci ji xam nga ne jomm na ci melo wala de te moom benn la rek de boo toro xale bii rek toloxal nga bële waaw bo loo def ci alquran ji daal di alku ndax mu wutu melo woowu dafa am kaddu borom bi subhanahu wa taala it waaw noonu la am na ay melo yoo xam ne wutal na leen ay xulafaaw si kaw suuf suuf rek laa wax de dégg nga xulafaaw yooyu nag danañ am melo yoo xam ne jomm nañ ci melo ci saan ba waaye moom lañ rek laa wax de boo leen rombee rek doo a waaw doo mën a waaw meloo dëgg-dëgg ba wa yaaka wa yaraa daan kulli suuratin mustahilatin zarumta min sirril wujudi liqa waaw bàyyil melo woo gis rek nga ne du moom waaw doo mën a dajeeg dëgg-dëgg mbir ma bu fekkoon ne si da ngay xool ci jomum léegi nag alquran ji du melo yàlla de ndax dafa am lang am araf am kaddu te melo yàlla amul loolu waaye moom la rek laa wax de waaw Moussa nag yàlla wax naag moom ca melo dëgg-dëgg wa xii la wax nañ la woo ñeel ko ne Moussa nga ne Moussa jamono ba yàlla di wax ak yow xaala mu ne lastu nekkuma woon Moussa Moussa wala aarifu xaw sax Moussa jamono ba nga xam ne yàlla nga doon wax ak man boobu Moussa nekkatul fa xaw li woon luy Moussa boobu yàlla rek laa xam rek waxaaza <clears throat> lii nag inda tuuri ca doju tuur la fa la yàlla wax rek waa yonent yàlla Moussa ana loo xam nag ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne ba yàlla di wax ak moom moom romb naa samaani juróom-ñaar romb suufi juróom-ñaar. waaw romb mboolem maqaama yi rek laa wax de moo tax mu kaana bu nekkee hasin munaajaat yi la diyaale maqaaman di maqaama rafian bi aji yëkkatiku moo yàlla wax ak Moussa yonent yàlla Moussa ci kaw suuf ca jabalu tuur waaw gannaaw kiraay pour munaajaatu diyaale allati gi nga xam ne saahiba ah, boromam tajaawaza romb na asamawaatu a asamaani juróom-ñaar a yi juróom-ñaar wala arsaaka aras wal kursi yaa kursi wa tajaawaza romb maqaama danaa fa tadallaa maqaamam jege na waaw danaa jege na fa tadallaa tam yooru rek dunu mooy jegeeg fanaaw tadalli nag mooy jegeeg baqaaw fa kaana mu nekk qaaba qawsayni comme jegeeg ñaari xale ya rek la wax de xam nga de maanaam comme tolluwaay ñaari xale ya qaaba miqdaara qawsayni rek laa wax de ñaari xale ni ñuy jegewante xam nga ne sorewul mm, noonu la eh, dégg nga yonentu jege woon jibril waaye jege gi mu jege yàlla moo gën a jege loolu romb na loolu lépp ila maqaami adnaa jëm ci maqaamu adnaa gën naa jege fa lizaalika looloo tax fa lizaalika al maqaamu boobule maqaama arfuma moo gën a yëkkatiku min haadal maqaami ci bile maqaama bi nga xam ne yonentu yàlla Moussa am na ko rek laa wax de bi nga xam ne yonentu yàlla Moussa am na ko maqaama bi yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko gën a moo ko a yàlla ci suuf la waxee moom waaye yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ci kaw la waxee ak moom waaw yonent yàlla Moussa yàlla wax na moom ne ko ma tilka bi yaminika yaa Moussa nettali na wax ja lu nekk sa ndeyjoor yow Moussa mu ne ko sama yàlla la dama ji sukkandiku wax ba mu jeex waaw yàlla nag la wax ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku nettaluwut ko waaw wala na bu ko mu ne faa waxa ila abdi ma waxa yàlla wax yu na jaam bi jenga yàlla wax ne jaam bi lam ko wax rek wa kon kay xam na ne yunus yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mo gëna for fuf maqama wa musa rek la wax de in uridu illa islaha ma stata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh